professeur Alioune Sow jëriñ bi ñu denk culture ak patrimoine historique jiite na ñaareelu édition bu Femme Force mu doon ay activité yoo xam ni dafa bokk ci plan bi ñu taxawal ngir soxaliwaat culture boo xam ni nag jigéen ñi dañ ci am wàllu wu rëy. boobu bés te muy ñaareel boo xam ne ministère bi wàllu cosaan ak aada daf koy def jaarale ko ci kuréelu bi ñu dénk wàllu lépp luy jëm ci wàllu jigéen nag lu koy dooleel ak luy indi yemale jigéen ak góor ci ak seen nekkin. ñoo ko ñoo koy def ñu jàpp ne muy bëggee réew mi jàmm ji fi ne sax fi dàkk dafa am solo li nga xam ne mooy canu mbaaru koom-koom mbaax ak jàmm Sénégal muy jigéen ñi ñu leen gën a yëkkati fësal li nga xam ne ni moom la ñuy def te mooy li gën a suuxat li nga xam ne mooy Sénégal bi ñu bëgg. xew-xew bi nag tax na ba ñu amal ay waxtaan ci diggante femme leader yi nekk ci secteur bi ak génération bu bees bi liñ ci jublu rek mooy fexe ba génération bu bees boobu rawatina jigéen ñi ñu gën a wane seen bopp ci biir secteur bi. Femme Force soo ko déggee dañuy euh, dajale xam nga femmes yi nga xam ne daal jigéen ñi nga xam ne euh, ay ay ay royuwaay nañu si seen wàllu liggéey. mun na nekk ay fonctionnaires mun na nekk ay ay artistes yu jigéen mun na nekk ay ñoo xam ne dañu am ay entreprise culturelle ñu dajale leen ñoo xam ne dañuy liggéey liggéey bu bu boo xam ne dafay jëmale ministère bi ci kanam seen liggéey fës lool ñu war leen nag jox kàddu bi ñu wax seen jaar-jaar pour que ndaw yi xam daal fi ñu gën a teg seen tànk si wàllu liggéey bi Femme Force doon na initiative boo xam ne day dooleel ba noppi di jox gëdd jigéen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum culture ñu bari ci ñoom nag teewe woon nañ ndaje bi ngir waxtaanee seenub xam-xam ak seenub jaar-jaar